Sage TV ëttu soxna yu baax yi page yu la ngi lay ñaan nga sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal koog say xarit am di jàmm Sage TV ëttu soxna yu baax. Mhm. bismillah kon mbokk yi ñu ngi dellu siwaat ak yéen suñu jataayu tafsirul Quran comme ni ko baaxoo def jamono ba nekk rek ci waxtu wi incha allahu taala. nga xamne kon batay ñi ngi ci suuratul baqara toll ci aya 223 cent vingt trois ak ñaar fuk ak ñett sunu borom subhanahu wa taala di wax ne wala taj'alu allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna an-nas wallahu samihun alim waxna na sunu borom subhaanahu wa taala day wax rekk ne yéen doomu aadama yi bu leen ma laytoo ci seeni ngiñ ba mu teeleen def jëf ju baax te muy jëfi njekk ak itam loo xam ne ak ragal yàlla rekk lay jur ak rafetal sa digganteeg doomu aadama yi mooy wala tajaalu bu leen def allaaxa yàlla ordatan muy ak gàllankoor li aymaanikum ñeel seeni ngiñ an tabarroo ci ngeen jëf jëfi njekk wata te ngeen ragal yàlla wata sulihoo te ngeen rafetal bayna naas ci diggante nit ñi wallahu yàlla samiun aji dégg lépp lu ngeen wax la alimun xam lépp lu ngeen jëf la sun boroom subhaanahu wa day wax ne rek bu ko doomu aadama yi laytoo ci ngiñ ci yàlla ba téeli ne def lu baax loolu mooy nit ma naa jekk jekki rek ne ah nangam du ma ko def ndax xas naa ko waat ci yàlla ba pare xas naa ko waat ñu wax wax ma ne déedéet dama ko xas ci yàlla ba pare loolu moom du ma ci dellu ginnaaw waat naa ko ci yàlla ba pare mel ni ko ci soxnaam am naan ko te nga jëlaat rek dañ la ko mayaat rek ma ah déedéet xas naa waatoon naa ci yàlla ne du ko jëlaat waat naa ko ba pare bëgg laytoo rek ne waatoon naa ko ba tey laa def loo xam ne boo ko defoon muy jëf ju baax soo ko defoon muy màndargam ragal yàlla soo ko defoon muy ak rafetul sa digganteeg doomu aadama yi yàlla neen nag bu ko laytoo moom ci jóge ci ngiñ ci yàlla rek tax nga neen xas naa ko giñ ci yàlla dootuma def nangam yent bi alayhi salaatu salaam neen lépp loo giñ ne doo ko def te wëlbati ko gis ne def gaa gën nee na nga nangoo deltu ginnaaw def ko te def kafaara waaw kay sa ngiñ tebbi nga def kafaara te nga def loola ginnaaw mooy la gën yonent bi neen loolu lañ gën a taamu ci nga bëgg a wax rek ne xas naa ko waat ci yàlla dootuma ci deltu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu koy wax daa wax ne man xalafa ala yaminin ba noppi faraa xayraha xayrun xayrun minha kon nag su boobaa nee na falyakfur an yaminihi walyafal alladi huwa xayrun ne képp ku waat ci ngiñ ba noppi wëlbati ko gis ne lam waatoon ne du ko def loolaay la gën kon nee na na kafaara na ngiñam tebbi ko mu kafaara tam def loolee nga xam ne aw yiw la tam waatoon ci yàlla ne du ko def hmm. kon mooy rek bu leen laytoo seen boroom ci giñ naa ko ci yàlla bam teelaa defu yiw mooy laa tajaalanna urdatan li aymaanika allaa tasnaa al xayra kon walakin kaffir an yaminika wasnaa al xayra mhm. kon loolu mooy wala tajaalo bu leen def allah yàlla ordatan muy seenu gàllankoor li aymaanikum ñeel seeni ngiñ an tabarro ci ngeen bañ a jëf njekk waaw loolu bu mu leen وتتقوا تين رجال يلا وتسلوا تين رفضل بين الناس جدي جنت نجني والله خيال لك سميعون أجدي جلا تيتم عليمون أجي خملا سن بروم سبحانه وتعالى جالو بدأ يدي وحرك سن بروم جالو دي وحنا لا يؤاخذكم الله باللهو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كذبت قلوبكم والله غفور حليم neen laa yu aaxizukum du leen jàppe moom yàlla laa yu aaxizukum du leen jàppe allahu yàlla bi laxwi ca kaf ga fii ay ci seeni ngiñ walakin waaye yu aaxizukum mi ngi leen di jàppe bi maa ca la nga xam ne kasabat fàggu na ko mooy fas na ko xulubukum seeni xol hmm, wallahu yàlla nag xafuurun ku bari njéggal la xalimun ku lewet la nee na laxwul yamin yàlla nee na du leen ko topp laxwul yamin nag firi nañu ko ci ñaari anam am na boroom xam-xam yi wax ne laxwul yamin mooy rek ngay giñ di kaf naan billaahi nangam billaahi nangam billaahi duma def nangam te fekk li ngay wax kaf rek nga ci jublu hmm. nga xam ne fasuwul ci sa xol bi nga koy waat nga doon kaf rek waaye nam moo ko ci sa xol dëgg-dëgg ñaan ko duma la jox waat naa ci yàlla duma la jox te fekk boo da ngay kaf rek nam nga ko jox nga xam ne ci dëgg-dëgg ci sa xol duggoo ci woon da ko doon kafloo rek mhm. yéen loolu nee na suñ borom du leen ko jàppe waaye mel na ne itam kilifa gu toll ne suñ borom it ëpp naa dugal ci ay caaxaan ak i kaf mhm. ëpp naa dugal ci ay caaxaan ak i kaf kon loolu ab julli war na koo moytu ba ci tam laxul yamin dis na ko firee koo xam ne li mu giñ bi mu koy giñ sax moom dëgg la ci moom loolu la fas ci xolam waaye nag dafa am ay argument ay biir mbir yum sukkandiku ba tax mu jàpp ne mbir yi noona képp la mën a tëddee tax mu daal di koy waat ci yàlla nga xam ne maanaam jibluwutoon a fen jàpp na ne moom li mu wax mooy dëgg ndax ay tegtal yu bari yum sukkandiku yàlla dogal nag mbir yi mujj nag ñu gis ci xam-xam bu leer naa ñu wane ne moom lam ñoon moom demewul noonu loolu mën nga cee joxe misaal su fekkoon ne tey danga toog su buntu kër am xale bu góor boo xam ne yàgg na laa romb ci su buntu kër ci waxtu yoor yoor woowu di jàngi misalan mel ni kuy jàngi xam-xam xam ne yoor yoor bu bu ne dana la romb bokk ab téeréem di jàngi hmm. yàlla dogal nag nga toog sa buntu kër rek nga gis ku ko nuru muy ñëw xaw laa sore nag ñu ne ah kee de diwa nga ne sàngam mi fi faral di jaar di jànge moom la xam naa ko ñu ne déedéet diwa de ngaa di waat yàlla ne du ko waaye ki ko fooge yow moom la waat ci yàlla ne dong bi jaar fii di jàng moom la waaye du diw te fekk yow la tax nga waat ko ci yàlla dafa am yoo sukkandiku ndax na koo ko toll ki nga gis mu ñëw noonu la toll amaana sax am na yére bu baaxoo sol boo xam ne kii ñëw ba tey bootul yére bu mel noonu la sol amaana sax kii ñëw am na lu yor ci loxoom ba nuru la ki fi daan jaar téere yi mu daan yor ci loxoom di jàngi nga xam ne natt nga waxtu wi mu fi jaar di ñëw mooy waxtu wi mu fi daan jaar nim mu soloo ak ni nga ko gisee mu ñëw lépp rek moom la la jox tax nga waat ci yàlla ne diwa yàlla dogal nag mu gën a jege si rek gën a jege si gën a jege si ba mujj rek nga xool ko ndekete du moom loolu tam danañ ko firee laxul yamin mooy ngiñ loo xam ne ba nga koy giñ moom këfoo daw nga ci ne la ngay giñ noonu la waaye nag daa am lu sukkandiku ba tax nga foog ne mooma te fekk taxul moom nee ngi ngiñ lu mel noonu dañ naan laxul yamin la bokk na ci la nga xam ne yàlla dala ko topp daf la koy jéggal waaye ba tey kon foofu danañ fi jàngee ne tey moom baax na dëgg la sax léeg-léeg mbir moom nuuru la dara waaye nag yàlla daal ba ci wala nga ciy giñ mbir moom na nga tey ba am ci firnde yu leer nañ waaw kay ku toll suñu borom daal bul ci giñ lu setul ci yow wécc lu leerul ci yow nii kon mu ne laa yu axisukum du leen jàppe allahu yàlla bi laxwi ci kaf fii ay maanikum ci seeni ngiñ walakin waaye yu axisukum mi ngi leen di jàppe bi maa ca nga xam ne kasabat fàggu ko mooy fas na ko xulubukum seeni xol wallahu yàlla xafuurun ku bari njëgal la te itam xalimun ko lewet la su ko defee ma fàttali nag barke sëñ diw moom moom sariya xamu ko waaw kay barke sëñ diw moom sariya moom xamu ko te itam lijjantiwu ko waat buñ ko waxee ci yàlla rek lay doon ak i turam ak i meloom waaw kay booy waat dangay wax ne billahi allazi laa ilaha huwa loolu mooy waat billahi allazi laa ilaha illa maa ngi waat ci màggu yàlla mi nga xam ne moom rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom waaw kay door caateeg nag la nga xam ne moom ngay waat waat na ci charia dafa am lu ñuy wax yeminul xins ak yeminul bir maanaam nit ki mën naa waat ci ne dana def nangam wala mu waat ne du def nangam masalan mu waat ne tey jii danaa dem ndakaaru waat naa ci màggu yàlla ne kenn mënumaa tey dem ndakaaru ba noppi nag yàlla di dogal demul ndakaaru nii ngi ñam daal di tebbiku mu waatoon ko ci màggu suñu borom gi nii kooku mooy nga waat ne danga nga def nangam te defoo ko ñaareel bi mooy mu waat ne nangam du ko def kenn mënu ko koo tax a def mel ni mu ne tey jii duma génn dëkk bi waat naa ci màggu yàlla nag kenn mënu maa tax a génn dëkk bi ba nag mu mujj génn dëkk bi nag kon ngi ñam tebbi ko na waaw kay kon giñ ne da def ak giñ na doo def te giñ ko ci yàlla su boobaa léegi ngiñ li ñuy wax léegi am na ngiñ la bu tebbi ko rek kafaara day war ñiñ le bu tebbi ko kafaara day war kafaara nag benn nga leel juróom benn fukki miskin maanaam wala nga goreel ab jaam wala nga wodd leen waaw lu mat fukki nit lay doon lu mat fukki nit nga jox leen kenn ku ne lu ko regg wala nga jox leen kenn ku ne ab yéere te yéere ba doon yéere bu ko jot bu mën a jullee ba ko ñetteel nag mooy maanaam goreel ab jaam ñetti façon kafaara yooyu moo am ñetti xeeti kafaara yooyu nag soo ko tëlee nag yor laa sant nag woor ñetti fan su ko defee nga woor ñetti fan waaye kafaara ci ngiñ lu tebbi mooy lu mat fukki nit nga añal leen jox leen lu leen rekk wala nga wodd leen jox leen ay yére te kenn ku ne la ko jox doon lu mën a jullee moo tax ñaan bu dee jigéen sax xaw nga boole ci musóor wala nga xam ne da ngaa goreel ab jaam ñetti yooyu daal mooy kafaara bi loo ci def baax na soo leen tëlee nag ci ngay door a soña woor ñetti fan waaw kafaara woor ñetti fan moom ba nga ko balaa koy def day fekk nga tëlee ñetti yële su ko defee itam kii waat léeg mu waat ba noppi am loo xam ne moom moo ko tegal boppam ni bu ngiñ li tegg ko loola lay def kon su boobaa bu ngiñ ci tegg koo lam waatoon loola rek lay def mel na koo xam ne ne waat naa ci màggu yàlla ne tey danaa dem Dakar kenn mënu faate dem bu fa demul rek kon danaa woor weer wala bu ma fa demul rek danaa gorelub jaam wala mu ne bu rek danaa julli téeméer ràkk kooku bu demul rek lam waxoon tudd ko loolaa koy war ok waaye nag su fekkoon ne nag léegi dafa waatoon ci yàlla rek waaye nag eggutoon ci tudd ne su ngi li tebbi ko nangam laay def kon su boobaa su ngi li tebbi ko benn lay def ci ñett yi ñu waxoon su ko tëlee door a woor ñetti fan mooy goreel ab jaam wala fukki nit mu leel leen jox leen leen rek wala mu wodd leen jox leen ay yére waaw kay bu ko defee sun boroom subhaanahu wa taala ngi jàllaat ci beneen àtte muy lillazina yuuluuna min nisaa'ihim tarabbusu arbaati ashhurin fa in faa'u kon fa inna allaha xafurun rahim wa in azamu talaaqa nag teewul ba fa inna allaha samihun alim nee na si na ñi nga xam ne yoolu na dañuy giñ min nisaa'ihim ci seeni soxna tarabbusu mooy ak néggandiku arbaata ashhurin ñeenti weer subaa rek léegi fa in faa o ndéem dellu nañu ginnaaw nangoo joteeg seen soxla nangoo joteeg seen soxna kon fa inna allaha wér na yàlla xafuurun ku bari njëggal la raximun ku bari yërmande la wa in azamu bu ñu dogoo nag wa in azamu talaaq bu ñu dogoo ci fase ko nag ah ba tey rek fa inna allaha wér na yàlla moom samiun aji dégg lépp lu ñu wax la te it alimun aji xam lépp lu ñu jëf la ilaawu atte boobu fuqahaaw yi jàngale nañ ko mooy ku waat ne du joteeg soxnaam diirub nangam te diir ba mu wax ëpp ñeenti weer ndax ñeenti weer moom wala lu ko yées góor gi sañ na ko borom kër bi sañ naa jékki-jékki wax soxna si ne ko waat naa ci yàlla ne diirum ñetti weer dootuma joteeg yow wala diirum ñeenti weer dootuma joteeg yow te su boobaa ndaw si muñ rek lay xale def bu demee ci àtteeku ju àtteekatu jullit ba it da koy wax ne am na dëgg ci loolu ndax loolu yoon may na ko ko nga xam ne lenn ci mag ñi daan nañ ko yare seen soxna bu fekkee dafa ñàkk topp seen ndigal te bëgguñoo jëfalanteeg moom luy xotti war ma ci biir kër gi ñu jaare ko ci wet googu ñàkkatee bokk ak moom ab lal diir bu yàgg boo xam ne xañ na dana tax buñ delluwaatee ci loolu rek dana wàññi ci moom lu bari hmm. alxuraan daa wax ne bokk na ci liñ ñu yare soxna mooy tóngu ko ci lal bi ñàkk tëdd moom hmm. egg na sax ci wax dóor itam waaye foofa mel na ne jamono egg na foo xam ne soxna si la ñàkk diggal ba egg ci war a dóor ak a moom mel na ne jëratu ko su boobaa day mel ne ak ñàkk mën a ànd dafay am rek subaa daanaka nag seeti keneen rek mooy gën hmm. waaye daal nga wax sa soxna ne ko diirum ñeenti weer du ma séqate yow loolu góor gu ko def sañ na ko yoon maye na ko lu ko ëpp nag lañ ko mayut kon bu ko góor waxoon soxnaam ba noppi wax lu ko ëpp nag ne ko feeg juróomi weer wala feeg ñeenti weer ak nàngam su dikkee ci àttekatu jullit bi daf koy wax ne ko li nga wax dégg naa ko comme li wax ëpp na ñeenti weer nag yoon mayu ko loolu waaye nag ñeenti weer yi moom yoon may na ko ko kon demal saa bu matee ñeenti weer nga dikk wax ma ko nga xam ne ndaw si bu dee bañ ne suba la ñeenti weer yi mat day dikkaat ci attakatu jullit bi yëgal ko ko su ko defee mu woo borom kër bi woo soxna si xamal ko ne soxna si ñëwoon na fii ci njëlbeen nga wax ma ko waaye dama ne woon ñeenti weer yi lislaam may na ko ko waaye su ñeenti weer yi matee rek na nga ñëw yëgal ma ko loolu moo sabab tey ñu woo ndax lislaam mayu la lu génn ñeenti weer yi kon nag comme xasoon nga ko nga dellu ginnaaw nangoo tëdd ak soxna sa ngiñ tebbi ko nga def kafaara boroom kër bi su nangoo def loolu ah, loolu lañ bëggoon ñu way ànd yi way dencante su ko nanguwul nag dogu ci ne moom du tëdd moom faaw la ngànkoon du ko bàyyi suba bi day tax sëy bi kaw nag bu neexee soxna si hmm. suba bu soxna si mën nag dikkuma fi rek ngir togg ko fóot damaa ñaan yàlla amul njaboot loolu mënuma ceewee wey kon bàyyi boo ñu dindi sëy bi suba àttekatu julli bi day dindi sëy bi ci kàddug lislaam su soxna si nanguwut a dellu su su boroom kër bi nanguwut a dellu ginnaaw joteeg soxnaam te def kafaara ngi ñam tebbi ko attekat bi day sañ a dindi sëy ba ci kàddug lislaam wane dindi naa sëy bi su ko defee ndaw su jàpp yit daam bu yi daam jeexee ñu may ko keneen rek koo xam ne moom dana ko mën a yor te mën a tëdd ak moom moo tax ma ne fa in faa aw ndéem dellu nañu ginnaaw nee na góor ñi ne ku ci def lu mel noonu te nangoo deltu ginnaaw kon loola baax na yàlla bari na njëggal bari na yërmande mën na leen a boole jéggal mën na leen boole yërëm waaye wa in azumu talaaq bu dogoo ci tas nag nga xam ne boroom kër bi nag wut a deltu ginnaaw kon day mel ne daa bëggatul sëy bi suwaatam àttekat bi sañ koo ci kaw bu neexee soxna si ndax bu fekkee soxna si daa mën a muñ ñàkk a jote ga nam ma wuy ànd ak moom kon it àttekat bi bàyyi ko rek mu ànd ak moom muy borom këram ca loola waaye saa boo xamee ne soxna si mënta wéy ci loola rek su bëggee sëy ba dañ attekat bi dindi sëy bi kon wa in azumu talaaxu ba doogoo ci fase nag fa inna allaha wér na ne yàlla samihun aji dégg la tey alimun aji xam la loolu nag moom mel na ne su ko góor defoon moom ba noppi nag dëgër ci këng moom ñaare day mel ne xam naa daf caa bëggoon a génn rek di wut yoon moom jaar ndax loolu moom day mel na rek kon ak bëgg ñàkk sa soxna la daal comme xam nga ne yow boo nanguwut a dellu ginnaaw àttekat bi tas ko moom kon sa ñàkk nangoo deltu ginnaaw maanaam fekk na rek kon maanaam tasug sëy bi neex na daal xañ na bëggoon ngaa tàqalikoo moom te amoo pexe waaye suba moom àttekat bi daf koy tas rek su ko defee moom bu jëlee iddaam bu matee rek keneen ku bëgg te mën a ànd ak moom rek yoon daal di ko koy may mhm. kon xam naa incha allahu taala buñ dellusiwaatee rek topp ko ak yéen mhm,